dafa nañ ko. rëjërëjëf a téet Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. dugg na. ah. boo nekk nii xanaa awaay. wala baa ngi nii de. fan nii. kër baay jëlee ngi ni doy na sëkk làkku waay te doy na sëkk weeru waay ñu maase saytu jooy nga maase moytu ndax Bamba doy na sëkk làkku waay te doy na sëkk weeru waay ñu maase saytu te maase moytu ndax Bamba doy na sëkk làkku waay te doy na sëkk weeru waay ñu maase saytu te maase moytu ndax Bamba doy na sëkk làkku waay te doy na sëkk te maa sa mën ndax doy na sëkk làkkuwaay doy na sëkk weeruwaay maa sa say doy te maa sa mën ndax doy na sëkk làkkuwaay doy na sëkk weeruwaay maa sa say Bamba doy na sëkk làkkuwaay doy na sëkk weeruwaay maa sa say sët leelu waay ñu maase saytu te maase Bamba doy na sët ak waay doy na sët